tuuti wax nañ ko waaye avant ñuy commencer la naan félicitation ak ki nga xam ne nii moom mooy Mariama bi nga xam ne nii moom ngeen nga xam ci série Mariama nekk actrice bu mag boobule ñu ngi xamal ne démb moom fu mu toll nii bagoo doit macha allah comme ki nga xam ni mooy Zeyna Mariama yooyu ñoo ngi lay bu baax a baax dina ñaanal sëy bi tamit yàlla na barkeel euh, Mariama xam nga ko voilà elle est charmante belle coquette wala coquine Valérie ak quoi Nité voilà moo ngi noonu xam nga ko sa mbokk ak kii la. Mhm. yéen a bokk cinéma bi voilà. incha allah koy ñaanal maa àddu maa ngi ziar ñëpp. te oust sànq laa la ko àddu nga ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp xam nga da ma fenal te man samay wax jàll muus. mais dëgg la <laughs> moom lu mu yàgg yàgg dama ko. fekk si si dëgg damaa fàtte dama laa fàtte. maa ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm di la ko ñaanal yow. merci di ko ñaanal Nana Objet. di ko mhm. ñaanal Nana être humain. Mhm. bu baax a baax a baax ndax yàlla dogal na ñun nag danoo bokk ci ngiru imam Malik bokk ci ñiy wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna mhm, fa yàlla euh, maanaam ñu naan génn nañ ci at tey dugg ci at ñun ñu ngi dugg ci sunu at waaw ah, booy xool nag ñun dañoo nekk ci univers boo xamante ni dañ dañoo yóbbaale ba fee lañ gën a focus. Mm-hmm. waaye nit dañoo am weer woo xamante ni ay weer. Mm-hmm. yoo xamante ni suñu borom daf na ko taxañal. Mm-hmm. bu ci nekk mu def ci la la ca wax muy ay sàttumbar ak nangam sàngam. su ma nee sàttumbar di nga xam lu mu doon. luy sàttumbar. sàttumbar waaw. sàttumbar mooy. samay laaj. xaw ma ko sàttumbar mooy septembre. Euh, mooy septembre. waaw ñun xam nga <laughs> ñi ñu am rabiul am na. mooy weeru muharram am ramadan yooyu ñun ah, yooyu ñun yooyu lañ moom daal mais dañ dem ba da koy fàtte sax waaw ñun ñun yooyu lañ moom dañuy dem ba di ko bàyyi ñun bu jógee fii ñu ngi jëm ci safar waaw incha allah safar moom ñëpp ko pare dugg ci weeru gàmm ak <laughs> ah. yooyu mhm. waaw ngay gis zul ñu ngay dégg ñu naan la ay zulhijja mhm. maanaam maanaam maanaam yooyu yooyu foofu lañ foofu lañ moomee daal. Mhm. da ngaa bon rek waaye da nga xam-xam. <laughs> Ah, nañu ci yàlla defal jàmm ñu dugg ci mu doon at mu neex. Mhm. at mu neex ñu ñaanal kilifa diine yëpp. waaye it jël ab ñaan jagleel ko son excellence muy Diomaye Faye. Mhm. ndax nag ci bu amee jàmm ñun ñu am jàmm. moom bu amee tawféex ñun ñu am tawféex. surtout di bëggee di bëggee ñi ñuy seetaan. surtout loolu waaw di ñu safoo di bàyyi xel saa su nekk heure bu nekk. ndeysaan sama xeet gi nga xam damay mun lu nekk laay wax. waaye mhm. lu nekk laay wax xam nga daanaka dañuy wax olof sax waaye olof dafa xóot ba nga xamante ni ay temps nga wax mbir mbir demee noo xamante ni day jéggi daal ñu ngi leen di tuubal bu baax a baax a baax. di leen baalu àq bu baax a baax. Mhm. yooyu waaw ki nga tudd nag. muy soxna Mariama. Mhm. moom moom turam rek dafa neex moom Mariama. Mariama moom wax dëgg fa yàlla toog moom it mu doon gone goo xamante ni xaw ne xaw nañ ko miin mhm. duñ ne miin nañ waaw ndax xam nga ni koo nekkal nekkaat ak ay ay ay yor te liggéey boole leen rek da nga naan xaw nañu ko si si waaw boo buggee ne miin naa ko wala xam naa ko da ngay mujj fen mhm. <laughs> te te da ko dul jar mhm. waaw mosuñ ko gis daal te lu ñàkk fayda man gisuma ko ci dégguma ko ci en tout cas génne neen loo xamante ni mooy Mariano di daw yees ñu def saison un mu cartonné ñu def saison deux mun naa ba tax ñu indi saison 3. Mhm. pour proposer ko nit ñi kon nit ñee ko bëgg consommer ko. Mhm. moo tax ñoom ñu joxañ mu def fa rôle bu am importance. Mhm. ñëpp di ko ci bàyyi xel ñëpp kii ko waaye nag taw tawfiq ak taysir di ko ñaanal yàlla na ci dugg ci alhamdulilahi rabil alamin te bu fay génn yàlla na yéex yàlla na doon néewam. amiin amiin waaw yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla tatagal boole ko borom këram. ñun ñu am ci ay Seydina Muhammad yu bëri am ci ay Cheikhul Khadim am ci Cheikh am ci Sidi Hajj Malick mhm. am ci yëpp ndax man moom sama jabar moom na préparé ndax man man man moom bëgguma doom yu bëri mhm. man nanaa dëgg yàlla bëgguma doom yu bëri waaye bëgg naa tuddee suñu Tuubaa mhm. maam Cerno Birahim maam Cheikh Rafal Euh, soxna Diarra Bousso. te ba léegi bëriwul. bëgg naa tuddee sama yaay. bëriwul bëgg naa Marie-Louise Diaw. bëriwul maam Diarra Guèye. bëriwul Astou Mbène. bëgg naa tuddee Nana. bëriwul ba bëgg naa tuddee Mo. bëgg naa tuddee Binet. bëriwul bëgg naa tuddee Penda. bëriwul euh, bëgg naa tuddee Sëñ Fallou. bëriwul bëgg naa tuddee Sëñ Moussa Bassir. Binet bëriwul bëgg naa tuddee Binet wax naa ko bëgg naa tuddee suñu Mountakha Mbacké. bëriwul yàgg teewul. bëriwul Sëñ Sidi Mokhtar di ñaan yàlla yokk si leeram bëgg mm-hmm. bëgg naa ko tuddee. Sëñ Sadi bëgg naa ko tuddee. Ataay bi na ñëw merci. Sëñ Moutala indi damay naan kañ. Mm-hmm. Michel mii di ñëw bëgg naa ko tuddee <laughs> bëriwul maanaam bëgg naa tuddee non xam naa ba ay dóor bëgg naa tuddee Fama Kase doom bëriwul bëgg naa tuddee maman Sow doom bëriwul limal moo ñu fa ne Fatima Diouf Fatima Diouf bëgg naa ko tuddee doom Cheikh Fall bëgg naa ko tuddee <laughs> maman Sow bëgg naa ko tuddee doom maman Sow maman Sow bëgg loolu bëriwul loolu bëriwul ngir rek yokk xeet seen amaam te loolu bëriwul waaw waaw même Doudou Ndiaye Coumba Rose bëgg naa ko tuddee doom bëriwul waaw sama sama sama mag yaay mi gaanu bëgg naa ko tuddee doom bëriwul parce que moom dafa sonn ci man sama papa it bëgg naa ko tuddee doom ak rakam bi nekk fële Ouz merci jërëjëf nana alors euh, moo ngi noonu ngeen gis ko noonu si écran bi moo ngi noonu Mariama noonu las bi dafa mel ni awala de nee na euh, c'est c'est c'est bouclé donc moo ngi noonu <laughs> c'est bouclé madame Ndiaye donc ñu koy souhaité bu baax a baax sëy bu barkeel si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi sa sallam mu am suñu njaboot ju barkeel alors c'est bouclé de Ousmane kii nu Michel li muy de Ousmane Ousmane ma taay nii nana demal vas ah. mu lim leen <laughs> Umar jërëjëf. salaatu bi bëgg naa ko tuddee boo ko waxatee ma demal. Ah, astafurlah bi la doon remplacer ndox mi. moo tax it baax na si comprendre donc <laughs> oh, man sëñ Saliou Mbacké dafa ma teg fu leer de. <laughs> ah wax dëgg man fu ne nii damaa nekk ci lu leer. lu leer nañ la ah, waaw waaw waaw. man sëñ Saliou Mbacké dafa ma woon lu leer man xam nga góomu yooyu. nga mm. xam nga yaa ngi naan ah, moom. da mm-hmm. xaj rek. dëgg kii dafa ma woon ma gis ndax topp ma ku dul sëñ Saliou Mbacké. macha allah moo jox topp nag. yii <laughs> caaxaan baaxul. vas-y. <laughs> waxaan ma vas-y normal. allez-y. <laughs> donc euh, ñu koy souhaiter heureux ménage di ko wax euh, yàlla na sëy bi barkeel ah Mariama peut-être ñun xamuñu ko. <laughs> Euh, ci tele bi rek lañ ko xamee. ci sëy bi nga xamante ni ñu ngi ko doon gis. ku woyof la voilà donc waa xëy na yow li mën a seede ci moom. Mhm. ñun ñëpp moom la ñuy seede à part bien ci gis biñ koy gis ci ci ci série donc ñu ngi ko souhaité eh, sama ginnaaw nga jaar nii loo jaaral li sama kaas ataay laa doon récupéré donc donc Mariama ñu koy yéen yéen barki yàlla est que xam ngeen ni euh, Michel li muy def ci ataayam bi c'est pas naturel dina ngeen koy xëccoo ci biir plateau bi nii naturelul yow am na looy def ci ataayam bi dinaa ci mos nag. ataay da koy naan naan nii. fecc <laughs> boobu noonu xoolal. naan na. nga ne dañ koy naan naan lan waxam. moom benn ndaw bu koy doon <laughs> yow sa papa dafa sonn sa papa dafa sonn ci yow. Mhm. bëgg naa ko tuddee doom. doo bàyyi kii heure ménage après après. wala jeex na hmm. ku baax la ci. waaw dëgg la bëgg naa ko tuddee doom. moom Moustapha bëgg naa ko tuddee doom. Dieng Moustapha aussi tuddee ko doom Moustapha Dieng. Moustapha Dieng. waaw Dieng mhm. ci mënti bëgg naa tuddee ndax man anecdote mos naa moom xëy na naa ko moom dama lay ni Moustapha moom la moom maman Sow. waaw soxna Waalo ñoo ngi lay bu baax a baax. Dieng Moustapha merci beaucoup soxna Waalo soxna Waalo moom. soxna Waalo moom faa ma tuddee ko doom ndax maam Asta Waalo bëriwul dëgg la sa yow sa jabar daa war a wàcc. waaw kuy dugg ci yow daa wàcc soxna waalo faa mu tuddee ko doom ndax maam asta waalo ma mm. mm-hmm. te yaa ngi fàttali ko man soxna Fatou Dia mu suñ tubaa tuddee ñu ma ko doom waaw léegi kooku dem si mariage doomu maam Mariama Sey muy maam Cheikh Ahmadou Ka on a qu'une heure de temps alors mariage yi doomu Macky Sall alors sëñ Ahma Mbacke tuddeeguma ko doom Macky Sall tuddeeguma ko doom xaat Aliou Sall tuddeegu ma ko doom Diomaye Faye tuddeegu ma ko doom Ousmane Sonko te anniversaire donc c'est joyeux anniversaire loolu loolu loolu dañ kenn du ko kenn du ko bippé kenn du ko cof moom da koy woo kon léegi nañ commencé après ñëw si moom bu ñu ñëw si moom merci beaucoup alors merci beaucoup ku ma daan déglu la bëgg naa ko tuddee doom jërëjëf alors Ousmane ñu bëgg tuddee doom ñëpp après si loolu dañ fa ñëw xam naa moom yow doo ko fekkee xaw ma ñaata nga yor dat waaye après di nga ko fekkee am na loolu doo ko fekkee ñu nga doon tuddee ñëpp. merci beaucoup balaa euh, nga ci dugal leen lu si bokkul